dañu jàpp ne moom dafa jappone mom la suñu don keneen c'est des mm. intérêts plutôt personnels en dehors de cela nak pour la personne de Macky Sall ko xam xamne que Macky Sall du poser ak bu amul politique c'est ça Macky Sall même buy mm. naan ndox sa il pense naturellement politique damay ne tey acte Amadou Ba bu fi arrivé parce que ñak pexe la d'une part il n'avait pas d'autre choix que Amadou Ba et même bo xolé si appareil am bi gisoo fa tay leader bu nga xamne tay mo moo ba profil ko Amadou parce que bu fekkee xawoon na fa and parce même bo xolé président assemblée nationale il y avait benn concret gagnon entre Amadou Ba et Mimi boo xoolee am ay députés yu ci Amadou Ba d'après les dits àndunoon ak Mimi il y avait des députés qui étaient avec Mimi Touré en ak Amadou il fallait que président trouver bonne présence en assemblée day trouver consensus pour nous gagner une majorité à l'assemblée assemblée nationale. Mm. dèjà moom wax nako ko vote nañ ko par procuration pour parce que sinon même pour am 83 députés ça pose problème. wax nako néna mom joxul euh, euh, farbangom autorisation. pour muy voter voter malgré tout ça procuration bi def ko pour lan pour arracher cette majorité. Mais est-ce que Diapo ne une vote sur une opposition mais, mais bien sûr, parce que, parce que la voix de Mimi Touré. Voilà, avec, avec frustration, comme que man faut la contester Mimi. Vous comprenez Vous faites que l'homme donne voix, nous on faut. Nous on photo, vous devez vous voter bulletin nul, quand vous voter par procuration. Est-ce que 82 personnes pouvoir monter à majorité Absolument pas. Mais de Foucault, comme deuxième tour. Moi, je me dis que l'acte Boum, c'est un acte immature en politique. il hmm. faut que nous bâtissions parce que nous hmm. discréditer. Elle est juste désespérée peut-être mais avec tout son parcours euh, c'est peut-être évident politique hmm. politique du contrat. mais termine par la nuit du gouvernement politique du contrat. Hmm. peut-être que nous rek la sam ak pas-pas am Sénégal. Hmm. mais à quoi qu'on puisse dire que huit mille cinq mille Sénégal gagner cette expérience de Bori, parce que permettre de découvrir d'autres réalités dans ce beau pays donc je pense que c'est l'avantage de avantage deuxièmement il y' a combien de cadres comme nga ko au sein de la mouvance présidentielle qui ñu jël ko def ko tête de liste. teg la kanam ñëpp ne la jiital liste bi ñu dem rek je pense que déjà cër maintenant l'Assemblée nationale ou pas moom la woon waram Amadou Ba la woon wala kenn ak keneen parce que pour dire vrai amoon na ay tiraillements maintenant je pensais que pour Macky Sall noppale il fallait que mu xool il n'est ni de l'un ni de l'autre mm. mu choisir ko ñu mun a trouver consensus autour Qu'est-ce ku gis vote bi keroog à l'Assemblée nationale xam ne que mouvance présidentielle bi.

asalaamaaleykum. maaleykum salaam sëñ bi naka mu yaa ngi man la Julde ma ñëwaat rek. waaw ah, Julde ñu lay déglu madame Diop. Euh, ne fa sans question waaw léegi maa ngi sant Abdou mi ngeen invité noonu. Mhm. sama camarade étudiant la xam naa ko bu baax. ok mhm. ok. waaw Julde. ñu ngi lay déglu mais Abdou tey mhm. baal ma mais Abdou tey mais Abdou tey dafa tey toogaay pouvoir tey la fi toogee def. ma ni de

man dama doon fréquenté 74 b ci ñoom Ibrahima Diallo waa Lumière. alors yow rek. ñun 76 b lañ doon fréquenté. di ñëwaat rek. waaw allez-y Abdou bu Dudé. bon je pense que Mimi Touré moom mu mu jéggal ma quand même parce que mag la am na benn irresponsabilité bi mu def. parce que mm. après les élections ñun ñëpp xam nañ ne. Mm. le président de la République les avait reçus. Mm. au palais ku nekk mu laaj ko avis hmm. elle était la première personne d'ailleurs à prendre parole et à dire que ils se contenteront du choix du, du, du président di def hmm. donc buñ demee te te ñun ñëpp gis nañ ne ci dégg nañ encore ci ci ci que ça soit Abdoulaye Seydou Sow ou bien Omar Youm le président du groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar moom biñ demee biñ demee ci biir assemblée bi leen ko waxee ñoom ñëpp a d'accord man jàpp naa ne bu dee dafa nekkoon candidat wala candidature am dafa nekkoon enjeu da waroon wax man quel que soit Alpha je suis candidat mu wax ko au palais wax ko tamit à l'Assemblée donc je pense que moom moo doon jël ëpp maturité ci moom beneen bi mooy mënoon naa rester comme ni ko Abdou waxee euh, à l'Assemblée bu demee au vote jarul muy def procuration bi di doon génn moom mu voté contre wala mu def candidature am comme ni ko yéen askan wi defee ñii di joxe ay Mhm. ñeneen ñi ni ko waa Yewwi defee yewee Barth eh, eh, Ahmed Aïdara donc moom tamit mënoon naa def loolu alors on vous remercie euh, Jules de ñu lay sant bu baax a baax gërëm la euh, intervention bi am na solo bu baax a baax alors euh, ñu koy sant di ko gërëm moom ki nga xam ne moo di Jules de du ñàkk sax xam naa neen la dala si plateau bi itam nga mm. daal di wax sa xalaat si mm. situation économique socio économique fi nga xam ne mooy zone Sénégal alors sànq ñu ngi fu am solo par rapport au gouvernement bu bees bii mm-hmm daal di koy taxawal mais amna na ñoo xam ne jëluñu nga tam quoi qu'on puisse ci seen ay poste wala comme sax euh, seen ay ministère doo mu daal koy gérer comme ni ko ña fa nekkoon doon ko gérer wala ci mm-hmm. naa ko ba si gën a le ministre des sports bu mm-hmm. amul ba doon jité mm-hmm. ñu wacce ko yéegal ki nga xam ne que moo di euh, yaa Yankhoba Diattara alors ban gis-gis sam exactement voilà merci beaucoup Lamine man c'est que souvent luma euh soit Yankhoba Diattara bi la nommé mm. les limites d'une coalition mm. ku xam peut-être tey mm. soit bu xam ne que il fallait Idriss Seck hmm. am benn membre dans euh, euh, dans le gouvernement hmm. alors que amatuñu woon poste fi ko war a mën a jox hmm. jàpp naa ne Amadou Ba jege na Macky bu nga xam lu mu ko ñaan war koo nangu mais quand même soit bu nga xam ne te amul benn Sénégal bu ci kontaan. Ah, c'est-à-dire donc da nga kaa waxtaanee seen biir. waaw mais avec mais euh, kese kese kese Zelensky la mën pense que est-ce que réservé lu Matar Ba la nga xam nga tey boo xoolee Matar Ba et c'est la famille. te mais erreur bu mu fa def mooy euh, en tout cas damay ñaanal on pas jatara fu ñu jëm Sénégal am ci ndam am ci victoire parce que mun ma comprendre Amadou Ba nek fi eh, comment Matar Ba nek fi 8 ans képp ku xam sport xam ne dafa bëri ay tolof tolof. Hmm. képp ku xam sport xam ne d'une part compétence amul ci mine la rek ak sens à quoi comme dem na te ba miin a ruqu yëpp hmm. mosuñuy dem coupe d'Afrique indi nañu ko mu naan yóbbu nañu deux fois parce que coupe du monde yóbbu nañu final coupe d'Afrique hmm. et tant d'autres cas depuis mu ñëw parce que mu naan chaque année Sénégal presque mu ngi qualifié. donc je pense que tey résultat bu mel noonu Sénégalais Maxime même bu à 4h du matin même comme ça mu ñak totalement dans sa coalition il waru faut dugg ci cuune bobu alors quand même je ne trouve pas cette nomination maintenant comme on mu ko waxé rek un gouvernement de terre. c'est ce gis-gis d'après son discours le gouvernement de terrain gouvernement boo xam mm. Mm. pour répondre maintenant mm. dans l'urgence parce que ku on xam 15 mois ou 18 mois moo fi dese donc tay soit je pense que ah, peut-être d'après Amadou Ba gis a ko keroog mu né bo xolé ministre yu bëri ñu xamnañ nañ yëf bi mën nañ commence passation de service dès hmm. lundi hmm. comprends nga mais demain, jàpp ne tey bon euh, c'est vrai bari na ay technocrate d'après lu ñu wax mais gouvernement bi géwuma ne ba léegi war nañ mun a réaliser les attendus du président pour 18 mois yi fi des parce que ku xam Sénégal ak jafe-jafe yu toll ku xam Sénégal ak trop trop bu dëkk bi toll actuellement nekk na parce que déjà déjà y a ça pose un problème parce que je dis que toujours bon je ne dirais pas cette fois c'est bonne vision de si Macky Sall d'une part vision là pour relancer encore une fois les difficultés que les Sénégalais sont en train quand même euh, de rencontrer. Hmm. D'ailleurs maintenant est-ce qu'il a fait un bon choix ou pas je dirais d'une part il a fait un bon choix d'autre part il n'a pas fait un bon choix parce que bon, depuis que nañ depuis démb conférence de presse il y a yu de gens di frustré comme local de Mimi rek laay mm. par exemple dembo aussi bon c'est département je prends par exemple département de Médina département de Bunkling Dakar et tant d'autres leaders nous avons nous ne ñuy génn di manifesté wu di woon Macky Sall il les a oubliés il les a trahis parce que beaucoup na ci ñu nga xam ne ñoo Macky Sall mouvance et euh, comment dire majorité absolue à maintenant il a fait son choix choisir le gouvernement de terrain jàpp na le gouvernement va répondre dans l'urgence les attentes mais au-delà de la personne euh, du premier ministre est-ce que a confiance par rapport à ce que vous dit exactement mhm. c'est-à-dire euh, la formation du gouvernement ministre est-ce qu'ils euh, ils sont à la hauteur bon xam nga instant yi ci en avant mais d'une part am avons nga xam ne à la hauteur mais nous ñu ne à la hauteur parce que aujourd'hui on par exemple on a parlé d'Ismaël mm. il était là

il n'est pas le seul par exemple le retour aussi de le retour aussi Kaba tant d'autres entre temps qu'est-ce qu'ils ont réalisé entre temps qu'est-ce qu'ils ont produit qui changé on soit essuyer yaakaar ils sont peut-être ses derniers espoirs ou quoi bon c'est là où se trouve le problème. parce que terrain quand un gouvernement de terrain gouvernement bon, il répondra les actes te kep ku xool képp conférence Macky Sall ak les députés de la coalition de Bokk xamne que il est en train de préparer un gouvernement qui fera face. mais léegi ah Barth et euh, Ousmane Sonko ñoom Guy Marius Sagna mais si même bo xoolee mu mm. parce que wax na ko député yi mu ne leen opposition bi député opposition bi gis ils sont tous immatures non la len qualifier c'est des députés immatures pour gëm lëkkante il faut que donc député ben Bokk yakar jël sen responsabilité. Hmm. c'est-à-dire que kaddu dafa am déggin jël leen responsabilité sur quoi pour faire face à l'opposition Le gouvernement est mu mu aussi Macky nobbul Sénégal wax na la réalité hein. gouvernement de terrain la soxla. Hmm. Hmm. je dis que xaaruñu benn réalisation une réalisation, nag fu ñu a ay milliards pour peut-être faire soxla Sénégal dans 18 mois dañ ko def bu fekkente ne. troisième mandat muy seen bopp. Ah, fu ñu dans l'histoire dinañ ko def dina fa pour lan mais je pense que les Sénégalais ne sont pas des fous comme ni la au cas de ñu dañu miné gi chaque jour rek ñu ñuy nax ñu ñuy nax ñu ñuy nax jàpp cette fois ça ne passera pas comme ça. man dama japp ne tey waaw man lool la gëm quoi. Mhm. mais je voulais juste peut-être revenir sur la nomination de Amadou est-ce que jàppoo ni président Macky Sall dafa tiit pour su ko nommé moom Amadou Ba la Amadou and ak Mimi Touré moom ak peut-être pas mal de au niveau euh, de Benno Bokk Yaakaar peut-être ñu mëna dem former sen coalition boobu. Mhm. donc ce sera peut-être euh, une grosse obstacle pour le président Macky Sall exactement. mais wax naa la ko nee naa Macky Sall n'avait pas.

dañoo ah, créer seen parti jël Macky def ko tête de liste mu nekk président dem. Hmm. ku xam Amadou Ba ñu fi wax yépp c'est des hommes yu nga xamné ne Aliou Ndiaye c'est des hommes yu nga xamné avant Macky Sall di nek président de la République là c'est des gens yu nga xamné ne am cër am wàll am respect ci APR comme Macky Sall lu fa amé wal malgré que Macky Sall est le patron yaa ngi comprendre mais gëm naa ne quelle soit circonstance yi Macky Sall moomul parti bi man dama japp ne tey buñu ñu aussi d'une part mu a faiblesse de leur côté gëm na war nañ mun incarner leur leadership au sein du parti parce que ko xam Amadou Ba xam ne même bo xolé ensemble national mun nga compter une quinzaine de députés nga xam parce que mu na c'est grâce à lui motax ñu nekk ay députés par contre aussi bo jël Abdoulaye Daouda Diallo comme Mimi Touré pour la tey ñu n'importe qui dans cette mouvance ce sont les têtes du parti les prenants du parti japp na ne tey buñu ñu exemple parti bi aussi d'une part mun na nekk lu leen xawa wañi wala lu xawa newlo a doole. parce que ci kër gi lañ bok alors mhm. euh, euh, je pense que quand bi jeex na ñu lay jaajëfal bu baax a baax a baax. merci présentation parce que. merci donc daa ñëw léegi léegi suñu deuxième partie bu seen rendez-vous de formation midi fa alors bay nga daal euh, tàggatoo ak téléspectateurs yi loolu seetaan. voilà parce que pas mal de commentaires ni ngi apprécier li nga xam ne di intervention merci merci beaucoup fallu maa ngi leen di remercier ñëpp aussi. Mm. di walé ñi nga xamni ne ñuy seetaan surtout mes frères.

ak encore une fois Fallou tey nag damaa sonn presque mu naan huit heures maa ngi si plateau merci beaucoup. merci Merci ah. et on espère euh, vous retrouver très bientôt merci merci. alors mesdames et messieurs on se retrouve juste après après ce temps merci pour la deuxième partie de votre rendez d'information ce pas responsable euh, politique à de leur